fi dajale nag du leen lu liñ tek suñu kaw muy lo xamanteni ni euh, daf ñuy gàllankoor ci suñu liggéey et je pense que nak tay dañu bëgg wax suñu droit kaas ba nga xamanteni autorité dañ ko dégg bu mën ñoo bañ dem liggéey looloo tax tay tey daje fii. Euh, bokku na ci nag gàllankoor yi nga xamanteni à chaque fois rek bu problème amé dañ koy féetale ci secteur culturel bi rawat na yi nekk yi def musique té lool mom vraiment dañu bëgg mu jeex Sénégal ndax je pense que ki liggéey vendredi ak samedi di ci gañe loo xam te ne wala dundalee njabootam soo ko teree da nga koy rey euh, te loolu nag moom dañoo bëgg à part de maintenant mu jeex euh, ci ñëpp ñi nga xamante rek dañ cee dara loru di lancer un appel nak, le président de la république monsieur Macky Sall suy jël yenn dogal yi mu ñuy woo di waxtaan ak ñun yaakaar naan su boobaa solution mun am mais mun ñu toog bañ a liggéey euh, suñu njaboot di ñu xaar ci ay dépenses ak lu nekk te joxoon ñu solution vraiment loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba.

voix am la yor wala instrument chaque week-end moom lay liggéeyee pour mën a dundal Si nga xëy un beau jour sans mesure d'accompagnement sans une étude préalable xëy rek ne kooku day moi je pense que tu le pousses vers la pauvreté léegi nag le problème moom il y a que deux problèmes qui sont là la Covid ou bien la pauvreté mais avant may ñëw foofu dama bëgg attirer attention aussi si nous gouvernons sur un fait nous au niveau de la région de Thiès quand la pandémie s'est déclarée tous les artistes de Thiès se sont levés ont pris d'eux-mêmes ont investi de leur temps ont investi de leur talent ont investi de leurs sous pour participer à la communication afin de barrer la route à la propagation du virus donc côté conscientisation nous avons un gouvernement je peux citer au niveau des artistes placiens. on avait un, projet intitulé Corona Tour qui consistait à faire des fresques murales dans tous les coins et recoins de la ville de Thiès. Et ça, on l'a fait sans attendre les gouvernants. Parce qu'on s'est dit qu'on est en période de, guerre, donc toutes les forces vives de la nation doivent se lever pour barrer la route à cette chaîne de propagation qu'est le, le, virus. On sait que le monde est en train de traverser une turbulence une turbulence sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Ça, on est conscient. Mais en marge de cela aussi, les gens doivent vivre. Ils doivent vivre. Donc, moi, je pense qu'il y a un jeu d'équilibre que les gouvernants doivent prendre. C'est-à-dire, avant de prendre une décision, nous peser le pour et le contre. Parce que c'est vrai, on peut barrer la route au Covid en enfermant les gens dans leur maison. Mais si tu les enfermes dans leur maison, ils vont vivre de, de quoi Soit ils vont mourir du Covid, ou bien, ou bien ils vont mourir de la, de la faim. Donc il y a un jeu d'équilibre à faire. Et c'est ça que j'appelle l'empathie. C'est-à-dire c'est trop facile que tu t'enfermes dans un bureau à Dakar, climatisé, avec tous les privilèges que l'État, que notre argent, que, que, nous contribuables, nous mettons à ta disposition pour que tu puisses prendre nos préoccupations en charge. Tu prends un bout de papier, tu prends des décrets qui impactent directement dans le vécu des gens. Pour moi, c'est irresponsable il faut le dénoncer. Donc moi, je pense que on profite de cette occasion pour lancer un appel au gouvernement. Euh, et le président l'avait dit, apprenez à vivre avec le virus. Donc euh, prenez votre responsabilité. Nous, on est dans ça. Par exemple, si j'organise une exposition, je donne un exemple banal, dans mon atelier, si j'invite les gens, toutes les mesures que je dois prendre pour barrer la route euh, au virus, je vais le faire. Donc, moi, je pense qu'il y a des pays qui sont là, qui n'ont pas confiné leurs gens, et pourtant qui continuent à, vivre. Et personne au monde ne peut te dire quand la pandémie dit, l'hiver Et ben juste et qui équilibre. C'est la seule chose qu'on leur demande. Au contraire, plaquer un degré interdisant, nous interdisant nos activités, ça c'est nous pousser vers la mort. Tu veux nous empêcher de mourir du Covid, mais tu risques de nous ouvrir les portes de la mort, et par la faim. Donc on ne se laissera pas faire aussi. On va attirer d'abord leur attention dans un premier temps. Ce n'est que des nous au niveau supérieur, c'est-à-dire organiser des marches et des, sit-ins. ndax Sénégal lañu nekk Thiès lañu ñu dëkk teyit ku ni Sénégal ni Thiès ni Kajoor ñu daja fi tey ngir bëgg a waxtaane li nga xam ni loolu ñun ñëpp moo ñu fi dajale ndax musiciens yi problème yi nga xam ni moom la ñuy rencontré depuis bi nga xamante ni affaire bi am na ba tey euh, première vague bi mu amee dëgg-dëgg metti woon na waaye dañoo tëjoon ñëpp ñun ñëpp ñu d'accordoon ci loolu parce que boobu ñëpp lañu ñu tëjoon ñu d'accord ci mais bi nga xamante ni dem nañu ba nga xam ni ubbi nañu ñii bàyyi ñii ñun ca lañu commencé di wax ca la ci suñu association jëkk a génn ci presse bi wax ak ñoom wan leen leen lii ngeen di def ni ñu d'accorduñ ci li ñu bëgg mooy suñu njaboot lañu yor dañoo war a dundal suñu njaboot dañoo war a dund comme ni ngeen di dundee la ñuy dundee musicien nekkul nit ku nga xam ni dafa dafa dafa vulgaire dafa bon wala dara déedéet dañoo am suñu métier. tey école yaa ngi nii léegi bi ñuy ñëw rek école yi ñu romb li ñu génn ci école yi xajul ci benn boîte amul boîte bu mu xaj kenn takku ca maska te pourtant ñu ngi leen romb ñu ngi dem ak ñëw te ñu ngi leen bàyyi ñu dem. garage yi boo ci duggee mi ngi fees dell kenn te boo doon calculer fukk yu nekk juróom-ñaar yi takkuñu maska te pourtant ñoom autorité yi ñu ngi gis loolu nga dem ci marché yi même. mais nous, lan la duñu comprendre lan Nous xew ba bëgg nous ubbi faire ñun la xew rek ni la ñun suñu faire des kanam borom mo koy fajal choses. Nous lo faire nous ko ni doon def premier action ni ñu def ko muy presse bi yeneen même buñ ci joggé des yeneen parce que tay li ëpp solo ci bi nga pour franchement parce que nous les musiciens c'est les gens les plus intelligents je peux le dire hein, les plus intelligents au monde. Musiciens, intelligents, intelligent de def musique mais nous ñu jité ils sont pas intelligents du tout quoi parce que de manière très intelligible nañu avant ñu wo ay Youssou Ndour tay di wax ak ñom tay nañ en avant avant wax concerté wu hall, ban plan la ñu comme ça bu boobaa heure bi lii lu parce que nous ñoo jël ay nit empêcher leen ñu dans seen dolé alors que contrôlé wu contrôlé wuñ dara gens Michael Jordan Etc, etc... C'est à cause de la culture et du sport que le monde que les Américains ils ont conquis le monde et le cinéma et le cinéma est culturel mais sur la culture bi sur le sport moo tax ñun ñu xam ñu à travers le monde ah Amadou Diaba en 84 ah El Hadj Diop El Hadj Ousseynou Diouf ak Pape Boubou Diop yàlla na ko yàlla yërëm en 2002 ils ont fait connaître le Sénégal partout dans le monde Youssou Ndour il est connu au Japon en Chine et partout am na dëkk yoo xam ne boo demee wax leen Macky Sall kan mooy Macky Sall duñ ko xam Abdoulaye Wade xamuñu ko mais boo nee Youssou Ndour ñu xam ko. donc la culture est au début et à la fin de tout développement loolu bu ko xamul bi les Maliens ils sont en train de faire de développer cette culture de développer cette musique tous les groupes maliens ils sont en train de tourner mais nous, sommes leaders yi fi nous par exemple stratégie pour sénégalais par exemple les jeunes musiciens les jeunes les jeunes acteurs culturels ñu faire a affaire hein? actuellement ni waa Dakar ñu ngay ñu ngay réunion li ñu xalaat au même moment où Dakar est def sen sit à la place de l'obélisque jeudi le soir je demande à tous les acteurs culturels ñu dajé la place de le promenade de Thiessois ñun tamit ñu def suñu on va demain dès demain démarcher voir les autorités pour leur dire qu'on va faire ça dañ leen quoi parce que pour nga def ben affaire dootoo demander autorisation mais da ngay demande da ngay tag da ngay yeglu waaw parce que lool mo nek suñu conscient... les musiciens c'est pas des ignares c'est pas des gens qui ne qui, ne sont pas qui n'ont pas été à l'école les musiciens c'est des gens instruits ils sont intelligents ku mën de def musique tu es intelligent mënoo ko dindi ci processus su dëkk bi waaw loolu daal laay ñaan ñëpp def ko techniciens yi tamit ils sont impactés tout le monde est impacté parce que les techniciens bu technicien de musicien techniciens musiciens technicien bu amul musique musicien am parce que ils ont été vagues dans leur communiqué le communiqué bi kenn xamul lu mu dañu tàngalaat ci communiqué communiqué ils n'ont pas été précis parce que bi ils ont pris le communiqué du 5 octobre 2020 moom la ñu reconduire daal di wax ni dañuy permettre dans les lieux publics ni sol masques yi respecter mesures barrières dans les lieux dans les salles de spectacle dans les dans les par exemple dans les dans les lieux de sport à la plage etc. cetera foofu dañu leen di tëj mais au nom de quoi et de qui ni war a tëj pour lan ah mel ni ñun ñooy véhiculer virus c'est pas possible Hein? Bah pour les salle de spectacle c'est trop vague bi ñu mujjee jël mesure bi dañu ni woon. 500 salle plus de 500 personnes dañ koy mais fii 500 personnes a salle plus de 500 personnes te Les restaurant yi gars gars, gars dañ chaque jour dañuy jouer ci restaurant yi di am on vit au jour le jour on vit au jour le jour Si ñu